de man de man de naa man daal am naa jaaxle gars yi waaw mais lii nag si lamb la bokkaa ah, lamb daa war a neex caam waaw daa war a neex teq nag moom da koy teq teq léegi c'est bon teq bu leen xeex ci mbedd mi lamb ay licence ngeen yor da ngeen fi ngeen di bëree léegi albarka kayre comme ni ma leen ko waxoon rek moom moom moom xam naa ne daa mel ni am na lu mu ñam géej a way ndax fa la mujjee woon combat bu tar albarka kaay albarka waaw léegi rëbës la nekk nag fa lay entraîné moog ñoom double moteur ñoom zaal bawal man daal lambi ay guerrier kese laa. dofu yàlla bi le fou de Dieu maa ngi dofu yàlla baa ngi nii. yàlla daa waaw. kuy dee dee waaye bilaay yàlla kay ay nit laa muy ah. caat caat kaay waaye <laughs> nii rek li sàcc bi di bañ. maa ngi de sàcc bi bëggu. sàcc bi bëgg de loolu lay bañ mu ngi nii. maa ngi nii taxaw maa ngi nii maa ngi nii taxaw. sàcc du ko bëgg de ba tey lii moom mooy tournoi bi. yaa ngi kaawa ngee toog kaawa ngee toog tirage lay doon Babacar lay doon ah. après waaw lay doon. kon ñu présenté rek sans. waaw hmm. ah. dañuy jóg. acca. acca kaaw jugal kaaw. acca kaay leen kaay leen waaw après dañ koy def tirage kon kenn xamagul kenn ku muy dajeel kenn xamagul ku dajeel kenn xamagul ku muy dajeel taxaw leen. kenn xamagul kan ngay waaye yow moo doon tey yow yow kan kan nga bëgg mu njëkk daje. koo kan ak kan nga bëgg ñu njëkk a daje fii. am na fii nii. ah li ma defoon. waaw man de lii laa defoon man. man daal lii laa defoon lii laa def. man de noonu laa def man. ah. un def loolu kana kii kan moo koy def wala cey loolu man de kaaw daf may fàttali Ousa Sow sax. mooy trois défaites yu teg loolu ku teg la trois défaites maa ngi lay bëgg yow parce que yow mën naa ne yaa leen dalal ndax yow yaa dëkk fii ci arène bi Thiat Daouda Fall di rakk Double Less numéro maa ngi lay bëgg champion di la siyaar bu baax a mhm. di nuyu ñi fi teew ñëpp mhm. yi toog fii yëpp grand Paul grand yi daali uh-huh. ak yeneen yi maa ngi jégalu mais dama xamul seen tur di nuyu samay adversaire bu baax di nuyu réparé di nuyu tegjël mhm. di nuyu presse bi yëpp di wax gars yi welcome bienvenue. am na solo kooku nuyoo na. maa ngi lay bëggee albarka Kayre borom Rëbës borom Dalifor borom liberté 6 ak liberté 4. noonu la demee nag. auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim. ma sant yàlla julli si yonent bi sant samay ñaari waajur. waa di ñaanal samay waajur fañ dem yal na leen gën a fañ jugee di ko ñaanal ñëpp ñi fa dem ñëpp. di ñaanal ñu nekk ci hôpital yal na leen yàlla may tan di ñaanal ñi nga xam ne caabi da leen a féete ginnaaw yal na leen fa yàlla génnee. waa di nuyu ñu fi nekk ñëpp di nuyu daal di bu baax a baax di nuyu suñu papa. waa di la nuyu di nuyu sama mbokk mbër yëpp. di nuyu ñi ma àndal Mamadou Aliou di nuyu euh, beneen booy bi papa waaw may nuyu sama waa koñ bàyyiwuma kenn li ko jëlee Sacré Cœur 1 2 ba Sacré Cœur 3 terminus Liberté 5 ñëpp daal bàyyiwuma kenn macha allah waa fi ma dëkk yëpp maa ngi woo ñëpp tamit ci combat bi tournoi bi ñu jàppale ma waaw. Kaaw Gourdin borom Dalifor maa ngi lay bëggee. auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi sant suñu ñaan waajura ah. di sant sunu sëriñ sëñ Abib si bi ma Abdou Aziz si Dabaax di sant waa Abdou waa Dalifor ñëpp rawatina képp kuy bëggee Kaw Gourdin rek ñoo ngi lay bëggee di siyaar waa presse bi di siyaar sunu sunu père yi fi ne ah di siyaar ñëpp champion rek ñoo ngi leen di bëggee Babacar nañ doxal. ñu doxal ah. acca am na solo borom école de lutte Doudou Baka Sarr borom benn tali wala ñaar tali ak marché Salema. Ah. ak gox yooyu ak bawal sax bu la neexee nga ni ba Mbàkke maa ngi lay bëgg. waaw dañuy wax onze billah bismillah inna waliyallah di wax jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom bi ñu sant yàlla julli sant bi ñu ngi sant suñu ñaari waajur di sant suñu ñaari bu baax a baax di sant suñu sëriñ Cheikh Bass Mbacke di wax ba lay sa dundal yaa ngi fi loolu te wér du nuyu fi ñu jógee muy Bentali Biscuiterie Grand Dakar surtout sama waa koñ waa Bentali waa Bawol maa ngi nuyu waa Bawol waa Mbombay di nuyu sama waa dëkk waa Touba waa Ndindi Baye bu baax a baax di nuyu njaboot Serigne Fallou yëpp di nuyu Serigne Mountakha Bassirou waa Saloum waa Samb Gueye waa Toubacouta waa Karang xam nga waa Daga Samb waa gent gay waa Touba Fall di nuyu waa Aslem ma fi a yokkal ma jaal maa leen bi bu baax a baax di nuyu ñu sama àndal sama grand sendel Paul Maurice Cheikh Mame Saliou kenn ci man Pierre sama njaago bi di wax ne bala ngay riigo da ngay raago bala ngay torojo da ngay morojo te cinéma bu pare nekkul bu Ndakaaro cinéma pare bu Dakar wax nga dëgg duñ benn sentel maa ngi koy nuyu sa grand frère boobu nga àndal maa ngi koy béggee bu baax a baax moom tamit léegi yow man yow lay njëkk a laaj sax tournoi bi man dama dégg ci ay nit ñu ne yow tournoi bi yaa ci gën a nekk ci danger yow yankaaw parce que dañoo jàpp ne ñi nga duglanteel war a woon a duglanteeg ñoom te duglante nga ak ñoom te pour nga daan leen ay jafe-jafe lay doon ci yow wa wax boobu dégg nga ko. waa ay ndaanaan ci nekk nag. ay champion ay ndaanaan ñoo xam ne dañoo wane seen bopp ci làmb ñu nekk ay xale yu ndaw ñëw ci làmb am lu war a wane ci làmb tey boo am loo war a wane ci làmb def sa bët ci roi des arènes kon lii jaaru gaare rek jàll kon loolu ñun ab liggéey la bu ñu war a def ñun te dinañ liggéey incha allahu rabbi ba ñëpp xam ne liggéey nañ a jëkk a laa dajal ku la ci maanaam premier combat man ñëpp laa war dajal de ah. waaw ku ñëw rek mu bëreel ñëpp laa dajal ku ñëw nga bëree ak moom man la ci ginnaaw tournoi waa laay pare pare mu tournoi bi de ah. waaw sama carrière laay pare ça veut dire yàlla xam na ne pare naa hmm. billaahi yow yaa man maa ngi ci sept combat. ñaata victoire quatre victoire trois défaite. gëj nga si àll bi. waaw tournoi àll bi corona bee ñu téewoon nag ñun moom ay xale lañ nekk ci làmb rek chaque jour dañuy compétir. ñetti mbër xam nga leen. waaw xam naa leen de. xam nga leen ci biir lamb xam naa leen ci biir làmb bu baax baax ñu nekk ay ndaanaan nekk ay bërekat. Mm-hmm. te boo bëggee te boo bëggee doon nda boo bëggee doon ndaanaan da ngay daan ay man bëreeg ay ndaanaan damay neex trop. yéen ñan làmb ji maa ci dàq bëre yan lamb. lamb ji Sénégal. lamb a ah, ñun ñeent. lambi Sénégal laa la wax. maanaam mooy lambi mi. waaw. kon kay ñuy safa ñuy waxaale. waaw. albarka mi yaa ko dàq ba. lamb ji laa la wax kay kon kay ñooñu jeexal nañu wax. maa ah, wax albarka ak keneen. albarka sa waay dégg nga li wax nee na lamb ji moo ci kon moom sóoraale wu la sax. ah dara moom day xaar. ñoom daal nañ xam ne dofu yàlla bi lañ dajal. nañ xam ne dëmm bu mag bi lañ dajal. dinaa leen lekk. naan seen deret seeñu seen i yàq waaw dama leen di lekk naan seen deret seeñu seen i yàq waaw noonu lay demee incha allah te bu dul dara ba dara nañ xam ne jël sa ruux lañ dajal man la jël sa ruux damay namp seen i ruux déggoo ma maa ngi jugee écrit dóor mu dee maa ngi sant daan songu daan jàpp daan cabaxal daan xatar bi daan xolal nooju daan noo def daan daan daan maa leen mën ëpp leen doole gën leen sadik gën leen waay ñii maa leen gën a maa leen gën a teppeeku laa wax képp kuy bëre ci làmb ji boo ñëwee ma jàngal la maa leen gën a tagadaa ñuy dofuñu dëggoo loolu ñuy dofuñu père nee na kenn du père père Max dafa ne mbër bu ndaw du préparé day pare kon man man pare naa bis bu yàlla saaka ñii mënuñu ma téye dama ñëw pour wane sama bopp kafewu ma ko foowewu ma ko reetaanu ma si du ay wax de li jàll jàll na li nii la ñuy wax. bu soobee yàlla déggoo ma làmb ji maay borom ci kattanu yàlla suñu borom. tiitu ma loolu tiitu ma wax loolu noonu. ñeme nañ dóor nañ taxaw du ma ci dóor kenn dama lay bëreloo ba nga xixat xolal bàyyi la nga toogee nànk côté kenn du la ne toogal ñii waay ñii waay ñii si kap si laa jógee kap si si gaab laa jógee ñëpp nekk sama ginnaaw du ma ko kafe ñii xolal doy ñu ma ndekki barki alxuraan karim bu arbitre ne pii moo leen luñ musta gis si kattanu yàlla suñu borom. waaye foofu saf na sap man de biir tournoi caat. waaw caat kee ne na moo dàq bëri ci lam kii ne na moom yéen ñëpp lay boole lem. kii kan kii nuñ tudd. albarka kayre ak kan ak yankaaw. ah ok ak kaaw gurde ñu ne ñooy dàq bëri. waaw non kenn moo dàq bëri ci lam kii moom li mu wax ma cee jaar. yàlla daa dogal man ma nekk xale di jàng bëri pour l'instant. yow da ngay jàng. damay jàng bëri de. mais àdduna maa si dàq bëre. li nga wax garaaw na de. ma waxaat ko. waaw dama nekk si di jàng bëre mais àdduna maa ci dàq bëre. yow de dégg naa ci gars yi amasaari mu doon tey nga xam ne loolu ñoo koy lijjanti nañ ko ci xeex ak yow duma ci ñoom ñett ñi. nekkuma ko de. man mënuma ah, xeex mënuma xeex mais bëre maa ko dàq ci làmb ji. bëre. Ah. maa ko dàq ci làmb ji. pour ñoom nii waaw ñoom waaw. am lu may wax kii am na lu may wax kii am na lu may wax kii ñoom ñëpp gooto gooto la. waaw gooto gooto day. ne dina jaar ci place bi. la trois escaliers la. faw ñu yéeg si. force la ñoom ñëpp damay yéeg jàll mënuñu ma téye dañoo xaar ba ma ñëw dañuy xaar ma dem ñoom ñëpp. wax lii. non ñoom ñëpp laa wax dañ maa xaar ma ñëw dañuy xaar ma dem. xam nga leen ñoom ñett ñii. kii seetaan naa ko seetaan naa kii seetaan naa kii. kii nag géejawaay la mujjee de. même kii géejawaay la mujjee. kii géejawaay la mujjee wër ndoom mu nit ñu tala ne ko mu daanu. yaa amat géejawaay doo daan yow itam. tala ne lañ ko def nga ngi. moom na bàyyi man moom. <laughs> na bàyyi na bàyyi ba mu rëcc fii na bàyyi ba mu rëcc fii déggoo ma de man duma ma koo xamante ne ni dañ lay buux di la jox fit man duma ma ñooñu noonu barki déggoo ma ñoom bis bu ñu jàkkaarloo géew ba dina xam ne ni xoolal ay rakku mbër ak doomu mbër doxul foofu noonu naa ko jàngal bëre nee day jàng ba pare dellu di naan moo daax bëre ki xamul fu mu jëm xamul fu mu jugee déggoo ma de. maay rakku diw wala maay doomu diw. amul man sama bopp laa gëm. sama bopp laa gëm li may bëgg xamul too. ay ñoom to jaabere pute yooyu laay dóor. kii maa gën a pare loolu laay dundee. muy xamul jaabere. Diawé day nag kaani boobu xoo nga koy di dóor. muy non xaaral xaaral <laughs> xaaral. looy naan looy naan. waaye dama ne poobar laay sulmo. acide laay sangoo jaasi laay bombo lamset laay waxatoo dilian laay galandikoo. déggoo ma de bu doon compo maay jël pay loolu du ma si dellu ginnaaw li jàll jàll na bu doon waxee daaneel nit kon kenn du kenn du fi daan mbëre ba bëri wax ñii maa leen mën ëpp leen doole gën leen pare maa leen gën a nekk woyu li muy def yëpp. déggoo ma ah déggoo ma ah. du maa ngi tee bañ ki muy bëreeg jawdin maa ngi ñëw ba si buñ estar bi ñu ne kiiru du dugg xale la muy xaar ba ma ñëw ba tolloog moom jaaral fële dañ laa talone waa léegi sa bopp léegi xaaral déedéet xaaral tournoi bi moom wane na boppam tirage bi daal daa mel ni tiré na boppam tirage bi moom tiré na boppam boo bëggee dégg dëgg ah combat ngi nii combat baa ngi léegi wuyu ma ah, man Kaw Gourdin laa bëgg a waxal dégg nga gars yi yow moom da ngaa ñëw kuul waaye gars yi moom ku ne wax nga li nga bëgg kii ne na moo dàq bëri ci réew mi kii na na moom waxaa ah, yéen moom da ngeen nag da ngeen a dugal waaw lekk waaw xam nga wax yooyu daal gis moom kii moom dégg nga lim la wax kii moom la mu wax leer na dañ ne day jàng moo dàq bëri ci réew mi yow nag xamu foo teg sa bopp ak foo féete waaw santaar rek kenn ku ci nekk ak li nga mën a waaw waaye Gourdin moom xam na ni du moromu leen na Gourdin waaw Gourdin dafa mu dal. te fu mu dal jamono ji mën na faa feeñ de. ah Gourdin. waaw mooy loolu te fu mu tol nii jëf daa taxaw. Ah, jëf dafa taxaw. waaw ah, ah, dafa taxaw moom rek takku. dafa taxaw. kon wax amul ñëpp. Hmm. dañuy xaar ci kàttanu yàlla. ñoom ñett ñëpp du du mun bëre de. du question mun bëre de. dañuy ñaan yàlla yàlla ma ñu fekkee ak tal waaw. dama xam ne fii. waaw arène bi suuf. yal nañu yàlla may fekkee ak tal Babacar Babacar. waaw ñii dañuy xaar ci kàttanu yàlla. ñi koy xaar. ci kàttanu yàlla. kenn du ci am dara. ci kàttanu yàlla. Ah. ñoom ñëppay daanu. xam waaw xam naa leen nii de albarka kayre laa gën a xam. loo ko xamee. parce que moom tapet la dafa bëri wax. <laughs> Ah, albarka tapet la. la te lu muy jaay dafa. maanaam fii la ëppee lu mu doon. waaw dañoo doon lu ko raw toog ci ginnaaw. lu mu doon dañ koo doon toog ci ginnaaw. ne ci moom laa ci gën a xam ñii ñëpp xaw leen ñëpp xaw ma leen n'est-ce pas mais maanaam moment bi nekkuñu pour pour leneen. waaw da ngeen di wax ne. instant yi tir tir tirage guñu. ah tirage guñu xam loolu la ñu di woo di woo di woo ñi nga xamante ne ñooy presse nañ jàppale carrément ki nga xamante ne mooy Idali ñu jàppale ko parce que lu mu tëgg la. waaw gars yi déglu waay. booy dong la tëg nekk ci yoon. kon tam dañ koy ñaanal yàlla. lu muy sumbu ci saison bi. sunu borom defal ko ko. mais ci kàttanu yàlla. waaw. kaw yaa ngi maa ngi ci huit combat. ñaata euh, am naa huit. huit victoire. waaye nañu onze combat nga am onze combat huit victoire. waaw trois défaites. trois défaites kon ñii défaite moo ma ñoom. mais du leneen. te bu nekk bu nekkee ci àll bi. maa leen ci ëppale maa leen ko gën a ñeme. loolu leer na yow yaa ngi ci ñaata combat. man maa ngi si 4 combat. ñaata victoire 3 victoire benn défaite. yow ñaata combat. man mu mel ni kon su ma déggee su ma déggee Modou Anta su ma déggee wax daa mel ni ñii parce que kii bu ne 11 combat kii ne 12 kii ne 7 combat kii ne 4 kon man nañ ne caatu de Fall moom moo ciy xale par rapport ak seen ay combat boo jëlee combat yi caat moo ci gën a nekk xale ci ay komba parce que tamit. non maanaam ci combat demee ba jël sama avance. waaw affaire rab mag ñun dañuy wax selon ak suñu ay résultats li ñu am ci seen i combat xam nga ki bëre 11 combat ak ki bëre 12 ak ki bëre 7 combat ak ki bëre ñoo ñooñu jili mënuñoo tolloo. est-ce que yaa ngi déglu ma la waaye nag garab ci kaw lay fekkante man maa ngi leen koy wax di leen ko waxaat yéen a ko play combat mais bàyyi leen ko xel. parce que yéen ñi ñëpp xam naa leen yéen ci mbëri fi taxaw yëpp waaye bàyyi leen ko xel parce que li tax ñu bool li tax mu dugg am fitu dugg ci seen biir te ngeen jiitu ko am lu ngeen ko jiitoo am na lu mu yaakaar waaye yéen ñëpp daal ku li am solo gars yi est-ce que duñu tiire man de loolu laa gis wala idaani li mu doon moo tax ñun nangul ko ko dégg nga ma lu mu doon moo tax ñun nangul ko ko mais déggoo la bu doon ci palmarès kese nekkum maag ñii kii moo kii Lamine bee rëy Lamine bee rëy xam nga tey ji am na ñoo xamante ne moom fu mu jaar moo bari fu mu jaar moo bari ah fu mu jaar moo bari moo tax lamine bi foog mu bari fépp la jaar. waaw léegi jeex na Ida eh, albarka c'est bon taxaw leen taxaw leen Yankaw taxaw leen Ida kaay. ma yow la woon dina leer. waa acca waa acca woo leer nañ ko tënkee mu gaaw gaay yi acca comme yow yaay caas wooteel. waaw maa ngi jégalu nag bu fekkee wax naa fi lu lu lu. Ah, li ngeen lu ñàkk teggin bu dee lu rafet la ci yàlla la bu dee lu bon la ci man la aussi. mais maa ngi woo képp kuy waalo waalo di woo waa waa waa Kër waa Cekkeen waa Góolam waa ñiit waa Boqal waa Mala ñëpp maa leen woo di woo waa Casamance waa Guinée di woo waa Touba Samba ni nga tournoi bi sa Wuri Saw tournoi bi Bobo tournoi bi di woo Ba Mama Fall di woo Barési di woo Malick di woo di di woo waa mafia jàmmoori bi di woo waa maar bi bu Grand Médine di woo waa Guédiawaye yëpp di leen wax seen doom seen rakk dugg na si tournoi nañ ko jàppale mu jël ko incha di woo waa Ndar ñëpp waa Paal waa Gandiol waa Raw maa ngi woo ñëpp di woo ñëpp ci combat bi di wax Saliou Guèye combat sa combat la Mouma Ndiaye combat sa combat la Khalifa Nambe bala tàngulu waa rungaas bi yëpp rungaas jàmmoori gi yëpp maa ngi leen di woo deen wax combat seen combat la. am na solo. Hmm, jërëjëf. koy wooyoo Kaaw. waaw dellu santaat yàlla bu baax di sant ñu fi teew ñëpp ñëpp rek ñoo ngi leen di sant rawatina ñu ma àndal Oli Gënsa Big Mo Olmondio ak sama gars yi ñoom Ndëmba Big mu gars yëpp ñoom Diop Chiar sama chauffeur yi ma àndal rawatina waa Dalifor ñoo ngi leen di woo bu baax ñun ñu lu dul ñoom ah Maris fépp rek. ñi nga xamante ne carrément dañuy bëggee Kaw Gourdin Yaraax Daaru Salaam cité Posu cité waaw assurance ñëpp waa ngembu naaw maa ngi leen di woo tamit ci comme ci gala bi rawatina waa Fatick ñoo ngi leen di woo ak ñi nga xamante ne waa Nguma Ngeewul waa Kel waa Ngaay waa Tivaouane waa Kër Massar ñoo ngi leen di woo waa Pikine ñoo ngi leen di woo rawatina sama papa Diak maa ngi lay woo ci combat bi bu baax a baax combat yi lépp pour yow la lépp yaay borom rawatina waa Géejawaay ñoo ngi leen di woo bu baax a baax di santaat bu baax di santaat bu baax Babacar ñoo ngi sant Idaali bu baax ñoo ngi koy bu baax waaw jaajëf. Omar borom Afia maa ngi yow. waaw man maa ngi maa ngi nuyu sama yaay mama Cissé maa ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu paa nuyu waa kër ga maa ngi woo waa mairie monsieur le sant seen añ maa ngi woo Cheikh Ndiaye. waaw maa ngi woo waa koñ bi yëpp daal ma kenn gox bi yëpp waaw Liberté 6 bi yëpp ñoom xam nañ nu mu demee fu mu toll nii man damaa dof di dox man taluma sax ay yooyu noonu dama bëgg a ñëw xam nga gars yi xam ne lépp dëgg la voilà kon maa ngi woo ñi nga xam ne yaakaar naa la yëpp di woo waa Ngojlem Senghor bu baax a baax maa ngi woo waa Passy si combat bi bu dee ñu ngi may dëgg Passy ma kenn maa ngi sant ñëpp di leen gërëm di leen woo ci kombaa bi maa ngi woo waa Dalifor menn kii sa fu mu dëkk maa ngi woo waa bu baax a baax sama combat maa ngi woo waa maa ngi woo waa Areyaw Dial maa ngi woo ñëpp maa leen di woo ci kombaay yi pour ñu taxaw ma waaw maa ngi woo waa Gambie maa ngi nuyu sama sëriñ bu baax a baax a baax di ko naan tu de suite maa ngi teew si kattanu yàlla waa di ñaan yàlla yàlla may ma ndam bu dee juum nañ ci wax yi ak yooyu noonu ñu ngi baalu ñëpp ma nuyu marem bu albarka Kéré ah waaw di sant sama waa écrit nag bu baax a baax di naan di ñaanal Double Moteur yàlla na ko yàlla may ndam mbëri nii ma leen di wax na xolal dof lañ jàkkaarloo nañ xam ne dofu yàlla moo leen tiim man la jël sa roo nekk écrit mu dee sant jàpp daan loolu amoo ci reculer en jël sa moom xam naa yàlla sax a ciy gën a wóor waaye nit moom yow kay daana rek te bul kenn moo gën a wóor yankaaw looy looy ba a wax. baaw iPhone 12 lañ ma dégg. waaw kër gu pare. taggal ma soxna. ci ci tournoi bi. tournoi bi iPhone 12 lañ la ci dig. kër gu pare kër gu soxna. taggal ma soxna kon ba dee. di nuyu waat nag samay supporters. di wax ne tournoi bi ku ci gën a sonn. képp doole. ku dàq bëre yàlla na yàlla def nga jël tournoi bi di woo samay supporter monde entier di noo ma fi yaay yokkal ba jaale ba mu taal di wax di su woo sama waa dëkk waa Mbombay di woo waa Touba waa Ndindi Baye Galas di woo njabootu Sëñ Fallou yëpp di wax ñu ñaanal ma di woo maam Saliou Fall sama jëwriñ di woo Sëñ Saliou dundal yàgg fi loolu di wér di wax nga sànni ñu ñaan yi yaaram di woo maam Saliou Fall borom Daaru Xafoor xam nga di ko woo bu baax a baax di woo waa Touba di woo waa Bentele Biscuiterie Grand Dakar di woo sama waa dëkk surtout sama waa dëkk waa Mbombay fukki penc ak ñaari ak yaay commune Ndondol bi bàyyiwuma kenn di wax ne seen doom laa seen rak seen xarit am leen war leen ni di roi des di wax ñu tàllal seen maa ngi tàllal sama loxo di wax ñëpp ñu ñaanal ma di woo ku ni sama sendal sama nijaay du ma ko taay di wax Kéba sama doom day sama lépp yàlla na yàlla fëgg boppam ba jëlee ko si njabootam waaye kon li dudu Baka Sane maa ngi ñaan li ñu bëgg na ko suñu def di wax promoteur nañ ñëw tëgal ñu ko mbaa ay ndaanaan ñoo fa nekk xam nga yàlla kot su mbay fay yàlla na suñu borom fëgg boppam ba mu dellu kot su pek xam nga ñoom père da ñoom père jaxade ñoom mbay diouf suñu grand frère ñoom noiro ñoom bu ndaw duudu xari ñëpp suñuy gannaaw la ñu ngi taalal suñu loxo ne ñu ngi seen ginnaaw ay xale lañ mënuñu dara ngeen ñaanal ñu di woo fans club yankaw bi fépp fuñu mënti nekk waa diaspora bi waa Médina Fass Goltapé waa Bentali Biscuiterie Grand Dakar susum maam waa Colobane njaga bu yankaw maa ngi koy woo ci combat bi ne Ba Abdou xam nga Pape bu yankaw mafia yankaw bi sama génération maa leen woo ñoom Ibou Sarr ñoom Mouriana ñëpp mafia yokkal ma jaale bi ku di woo Mass borom Colobane ma ca iPhone yi di ko Mass jàppal ci combat bi grand Mbaye Fall maa ngi woo di woo sama maire maa ngi woo sama maire di woo a fen Diouf di ko wax ne ñëw jàpp ci dañoo nekk ay xale am lu ñu war a wanaa ci bala ngay riigo faaw da ngay raago bala ngay torojo faaw da ngay morojo cinéma bu Paris boo ko lak bu Ndakaaru pomme de moromi new pomme de terre ak Angleterre daña teer moo boole waaye duñu benn ay ndaama na solo ah ana ana waaw lii mooy tournoi bi tournoi baa ngi nii daali mu mel ni kon tournoi baa ngi nii léegi nag euh, maanaam yow sa kàddu gu mu looy mujj a wax képp ku xam lamb tey dund lamb dina xam ne ay mbër waa da dajale ay xale yoo xam ne ëlëg jàpp ne ñoom ñooy espoiru lamb ci ku ci gën a liggéey gën cëpp fulla gën cëpp fayda waaw ginnaaw ma sant yàlla julli ci yonent bi di sant sama ñaari waajur di ñaanal sëñ Abdou Karim Mbacke mu yàgg fi te di ko ñaanal bàyyi ji di ñaanal Cheikh Ndigal Sène di nuyu sama mbokk Bawol Bawol yëpp képp kuy Bawol Bawol daal maa ngi lay a loxo rawatina waa làmb ay ndaw lañ ànd ak ay ndaw bëgg a defar làmb ndax itam làmb na fu mu dëkk am ñu a ngi ñaan ñu ñaanal ñu ñu àggale lii commencement commencement la ñaan ñu àggale ko di woo gën a ñaanal suñu borom mayo ma tànk yu ma taxawee ba ma bëgg a liggéey ci làmb ma liggéey ko staff ñi ngi production yëpp itam maa ngi leen sant bu baax bu ma limee damay juum mais maa ngi commencé ci Saliou Ba ak Abdoulaye Ndiaye mi nga xam ne daf may jàppale di nuyu mbëri ndax wax dëgg yàlla am uma seen fay ay morom lañ man ñoom kaddu lañ ma tënk woon jox ma ko man ñoom ñun ñu nekk koo xam ne kon maa leen ñaanal daal ndax mënu ma ñaanal kenn ndam mais leen ñaanal ñu mucc waaw yàlla na mucc ñoom ñëpp ci def nañ leen war a def daal ñu am na yeneen combat yu ñu bëgg nan ñaanal ñi production am na leneen lu ñu bëgg ñu di nag xama di nuyu ñi nga xamante jàpp ñoom Omar Saliou mi dañ ciy jàpp Baye Fall mu daan te da ciy jàpp ñoom ñooñu wax de yàlla ci ñi nga bokk journaliste lañ mais ñi nga production lañ bokk ndax ñoom samay nit lañ fu ma nekk ñoom ñi ci loolu lu mu ma nekk ci loolu am na sama benn grand wax ne mi sama ginnaaw grand àlla kii nii ngay ni laay seen sama xarit la bu dégg bëccëg ñooy ànd moom daf may jàppale ci lu bari

Albarka Kayre caatu Daouda Fall ah réparé ak ki nga xam ne nii moom moo di teq jël daan dem mel ni kon loolu la idaali commencé ren ñu koy ñaanal yàlla rek comme ni mu ko waxee yàlla na réussir li mu sumb di ko ñaanal bépp promoteur parce que ñun tamit lamb la ñu am équipe bu CNC bu bees bi ñu fi teg nag yàlla ñu réussir seen mission lool lañ leen di ñaanal ba lamb mën a jëm kanam di nuyu gaay yëpp ñoom jili wasaare Basir Omar Saliou maa nii moom tamit ñu yàgg lool muy sama rak di sama xarit Modou Anta tamit bu arène bi du ma ko fàtte maa ngi di nuyu ah, sama waa ji Idi Idi bu Géejawaay wala Idi bu Pikine wala Idi bu banlieue bi maa ngi koy nuyu daal di nuyu mbër yëpp di wax nag li ñu fi waxante waxi mbër la rek tournoi nag moom loo ci mën a dégg du benn combat du ñaari combat maanaam daa nekk loo xam ne dafa am nuñ koy entamé di ñaan Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm gars leen jox rendez-vous rek ci kanam ak yeneen daje parce que nag ñun lamb 100 pour cent la ñuy dund di nuyu groupe ñu ngi production bi rawatina groupe whatsapp bi ba beneen yoon incha allah. beneen bi ci topp mooy sama mbokk Bawol Bawol yaa di wax ne ah. ñoo ñaanal dooleel nu ba fi ñu bëgg a yóbbu lamb ñu yóbbu ko ndax ñun Bawol lañu couleur a jàppale ngi sant ñëpp nag di staff ñu ngi production sant ñëpp Ba gaay si ginnaaw yëpp maa leen sant daal di leen bëgg bu baax di jox gaay yi rendez-vous ok incha allah jaajëf gaay yi mbokk yi kon noonu ngeen ko gisee idaal ñu ngi moo ñu fi woon fii ci arène nationale ñaari ndaanaan wala tournoi xale yoo xamante ni macha allah dina neex dina yëngu parce que Serigne Bass lii dama ko namm li tax ma naan man maay ambassadeur mbëri ndaw yi xam naa ko parce que mbëri ndaw yi dafay neex dafay yëngu boo xoolee diggante Tekk Jël ak Réparé loolu rek doy na combat. parce que affiche la boo xamante ni combat bu neex la ñoom ñaar gis ngeen li ñu waxante teq nag moom bu jàppee du bàyyi signature am dafay neex combat am dafay neex réparé deux tamit yaa ngi bëri xale boo xamante ne champion la jox ko cër ngeen bëre yéen ñëp mais tournoi bi bas dina neex parce que boo xoolee réparé <laughs> waaw du changé yow <laughs> da ngaa <laughs> ñëw fas sa kanam aju man da ngaa sa kanam jël tax mooy loolu ah. ah mais mais am nga combat nak yaa ngi bëri xale boo xamante ne ndaanaan la ci làmb teq jël dafa mën bis bu mag te combat bu mu nee tay mu dee bu ñëwee di ci génn lan ngay waajee. ma yàlla baax baana yàlla baax baana man daa am instant nii daa am ñu ma sas taxawal waruma ko waaw daa am ñu ma sas taxawal waruma gis nga combat yi ba mu taxawee en participation duñ koy paree sama ñoom patron ñoom jibi xam nga ak ñoom jazz ñoom lat xam nga ak ñoom suñu wóorut non man mi sax pare ma ko. yàlla seeri na ko. maa ngi gis Tekk Jël mu ngi lay def lu mu gën a bëgg ci làmbam mooy mooy déstabiliser la merloo la euh, indi la ci làmb ja te loolu est-ce que mën naa mën naa dem ci làmb ja. avant mbër sportif la avant may may may bëre la man wax jëngaluma man wax séntu nañ ci xeex. noonu lépp a si am dinaa fa ñëw jël si la jël si jël bu neex bu yënga jaajëf mbokk yi kon loolu ngeen ko gisee am na yeneen affiche yoo xamante ne mu ngi ci biir yankaaw bu leen ko fàtte champion la boo xamante ne mu ngi nekk école de lutte Doudou Bakassar bu leen fàtte tamit ki nga xamante ne mooy Kaaw Gourdin bu Dalifort caatu Daouda Fall bu leen ko fàtte ak xale bii nga xamante ni mooy Albarka Kayre ñoom ñëpp ay sampion lañ yoo xamante ni tournoi bi dina neex idaali ñu ngi nag xaw ma ku la dee waaye <laughs> ñëgg production ay ca sëñ Basirou